as léegi nag am kara boy salaamaaleykum internet yi nuyu leen bu baax a baax am mbégte contentement jërëk yéen saa su comme ni ñu koy defee combat bu ne dañ leen toppal avant pendant après combat bi sama émission nag champion bi la tudd yaay champion mbër champion kan la dalal tey Ada Fass xareb Ndakaaru bi borom mafia Alma Diassi bi ma nuyu ko bàyyi ko ma nuyu internet yi ñu laaj ko nan la dundee combat bi avant pendant après Ada nuyu naa la waaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Mor Ba mu Xaadimu Rasuul dawal wax Alioune Souba Karafal maa Mhm, di la ziar bu baax a baax. ginnaaw ba mu gis nga ko de sela mbër duggee ci géej gi day tàng jëm mel ni safara bu génnee moo gën a sedd glace ci noonu nag nga amoon combat ñu ne bi moo nekk vrai examen Ada Fass nga ñëw génn ci nan la la def. waaw combat bi daanaka ñëpp ñëpp ñu ngi ko doon xaar waaw combat bu métti la tamit bu neex waaw combat bu ñëpp bëggoon waaw yàlla may nañ dem dañ koy sante suñu borom. di ko sant suñu borom mais dama koy ne félicitation rek au passage ñu gis combat bi des lu mat mën naa ne sax 15 jours wala minimum nga génn dëkk bi lan moo waroon génn bi. waaw amoon dem na am lu ñu liggéey liggéey lu ndaw rek ñëwaat waa di gërëm di nuyu au passage ñu fa nekk rek sa sama père Pichu Wëz ama fayam kooku sama papa la palmu Omar Pomzu sama grand bëggal ma boxam Chérif Rakam. waaw Palma maa ngi lay nuyu au passage waa Palma bi yëpp maa ngi lay nuyu. Uh-huh. ayca nuyu na ñu ne préparation am na jour open press am nga jàpp bés sa morom bëri jàpp bés terewul gars yi buy si la lan lan lay def. waaw loolu sant yàlla rek ndaxte ñun ay doomu ndakaaru lañ ñu fii lañ dëkk ñu wootee ndakaaru yëpp ñibbi ñëpp bàyyi seen lépp ñëw teewul ñu waaw. ñu ñëw ci biir arène nationale bi Ada ñëw def show comme ni ko tàmm gisee bàqu bàqu rëy si ko def kontaan ñu gis. yeneen mbër ñëw ku ci mel ni bébé Diène ñëw Gris Bordeaux ñëw ak Fass ñëpp topp sa ginnaaw loolu la la la def. loolu sant yàlla rek nate bébé Diène sama waay la sama gaañ la sama lépp la man moom dépp mbëppat la yàgg na temps booy ko ñaar suñu borom may ko suñu borom may ndam nate moom suñu waay la suñu lépp la bébé Gris Bordeaux suñu mag la. mooy suñu njiit mooy suñu tigre ndaxte mooy suñu mag mooy njaboot ñu ñëpp di ko rek jaamu di ñaanal Lac Rose Pape Ndoye Gris 2 ñoom ñëpp maa ngi leen ñaanal jàmm kontaan naa si ñoom bu baax double moteur tamit kontaan naa si mhm. lu ma gis kontaan naa non à la violence dafa ñu dafa ñu yàqu ñu estade ñoo leen subal seen mbër seen mbër ñu ñibbi wàcc nang dañ ñibbi waaw kontaan bu baax si mhm. ñu ñëw ci biir enceinte bi Ada Fass préparatifs yi yàgg lool ba ñu bari. dañuy naan Ada Fass xanaa dafay da doon da doon lu jëndi wala lan moo tax sa préparation mystique yàggu lool. non dañ nekkoon di suñuy bagages lañ ne ko rek ndaxte laam moom saa laam saa bu ne ah chaque laamu bagage yi yokku rek. loolu noonu lu mun woon ñàkk la si biir wi waaw moo tax ñu doon sangu suñu bagage mais du ay lijjanti combat waaw du ay lijjanti combat ndaxte suñu gëm-gëm dañ daanee waaj nekkul ay lijjanti komba waaw. li nga xamante ne nag ñëpp wax nañ ko démb gisuñu Ada Fass mais comme man toog naa Ada Fass dama koy jottale ñi sa adversaire da ko tendre piège ndax ba nga jëlee hmm, lëg la ñëw teg ko ci tànkam bi tu t'attendais moom mu ñëw fël ko far moom mu ñëw def loolu est-ce que yow loolu nga prévoir non man loolu tegu ma si tànkam waaw loolu tegu ma ko si tànkam waaw loolu moom loolu daanu laamu ji sax laamu ji sama gëm-gëm laa ko daanee day sama gëm-gëm sama fulla sama fayda ak lu ma liggéey waaw loolu moo daan laamu ji mhm. ci noonu la leen joxe benn anecdote sama moo ko wax démb nee na diggante ak manga ba ñuy bëre dégg naa muus lañ indi woon yëg nga histoire boobu wala yëgoo ko. yëg nga ko fii la doon ngemboo kër gële kër gële la doon ngemboo maa nga fii la doon ngemboo waaw. yëg na de dafa mel da nga la laa mu jooju rek moo ñu yitaloon te suñu borom may nañu ko. ndam moo ko yitaloon am na ndam fu mu nekk nii dañoo ne ku tëb dal ci xal desenal beneen tëb Arafaas la moo nekk sa kanam. waaw nekk suñu kanam yaatu na ndaxte ñun dañoo ñun duñ tëgg benn mbër mais kuñu ñu làmb boole rek dañuy bëri geew mais duñ tëgg kenn voilà. tëkkuwoo kenn waaye làmb nee na instant bi mën nañ gis Zarko mën nañ gis euh, soq mën nañ gis mbër yu bari yow la nga wax. man daal pare naa man bu ma soñoon mois de août bii damay bëriwaat incha allah pare naa képp ku ñu ma booleel te kooku pare ah, kooku du pare rek man pare naa ndaxte man instant man taamu benn adversaire. waaw taanu taamu ma kenn mais bu ma jëlu léegi day gën a métti si rek. lan moo tax dama ko xam xale bi day màgg te li muy gën màgg dañuy am problème. Mhm. Arafas comme lu Lamine démb waxoon nee na xale la mais du xale ci jëmmam Arafas yow li ngay woote ak li nekk ci yow dafa dafa opposé parce que dañuy gis Arafas ku yaru nga jàpp dafa yambar mais bu duggee beneen xar kanam lay wane la da ngay nax nit ñi wala. waaw ah, moo demee noonu rek ndaxte ñun tey jii maa ngi wax ak yow mais signaté day mel ni kooku du Arafas. te loolu làmb moo koy laaj lu ñuy def ak lu ñuy def si biir géew du bokk lu ñuy siffler beneen arafaas ngay gis arafaas bi dëggal boppam arafaas bu dul reculer arafaas bu la jàppee mu jeex boobu ngay gis mais instant bi nii waaw bi ngay gis waaw Baye Fall bi jeex na. Mhm. taalibe bi Baye bi démb bi làmb ji jeexee du ma ne sax loxo dafa dar gémmiñ ndaxte arafaas bu daanee kulifay war na koo mën a daan mais ak anam bi nga ko daanee. da nga ko daan avec la manière est-ce que yow xaaroon nga ci loolu wala am na ñoo xam ne yow ne woon ci xeex la combat bi di jeexee. gaay seen wax seen xam-xam la ñu wax rek seen gëm-gëm ak mais mbër bi si boppam xam na moom na laa man na laa waroon daane Coly Faye de xamoon naa bu yàgg xamoon naa ne man noonu laa koy daan dama koy nax ndax de dafa poids la poids lourd boo ko naxul doo ko daan wala combat bi day yàgg te moom dafa daaju il faut nga nax ko si biir bëre daan ko. songo mu mujj dafa mel ni Arafaas da nga kaw est-ce que jël nga ko yow parce que am nañu ne man jël naa ko mais coup bi dérangé wu benn hypercule bu ma daloon du baax te ma mu génn. <laughs> daloon <laughs> du baax mais. yii <laughs> Baye Fall fii suñ bu la dóoree allahu day mel ni sa noppi mooy reflété allahu ku ba baaxul mais xam nga horaire bi yóbbante woon rek dafa na waroon jàll dem asamaan sa yàgg horaire bu doon joxe aar doon jox aar horaire yóbbante loolay du dal xam nga kii ki mooy Mbappé yalmin bi Poutine xam nga Poutine ki mooy Barthélémy Dias yeewi askan wi ñooy yeewi démb sa yeewi njëkk xam nga ñu yow. waaw sa mafia bi dañ may rey ah. la woon. Euh, horaire boobu la romb am na ñu ne ba nga demee yow xeex nga doon jàng wala ba nga demee self defas nga doon jàng dëgg la wala déet. waaw li ñu doon jàng démb feeñ na ndaxte moom la ñu wane démb si góob bi ndaxte man dam naa toog fële gis sa ah, sa benn interview yi moom muy wax rek maa ngi fay laa fay toog di ko seetaan maa ngi gis muy wax ak yow mu ngi wax lu nekk eh, di wax amul lu waxul lu mu waxul da ko fàtte lépp la wax lépp gis naa lépp la wax ba maa ngi fële di ko seetaan. maa ngi samay entraînement doo ñëwaat da ngay bàyyi avance. Ah, moo tax instant ñuy ah, di jubilé man gis naa leen nga ne yaa ngi wax rek est-ce que xam nga Arafas mu ne moo tax démb lépp feeñ ñun làmb dañoo am dañoo am suñu yaakaar ñu demoon dix heures yi ñëwaat ndaxte làmb lañu am ay xale lañ mais làmb lañu am làmb lañ bëgg làmb lañu opté moo tax démb calculam nax na ko moom moo indi yëfu xale ma indi yëfu mag daan ko dem si moom. yow yaa ko gën a neex xale moom muy indi yëpp xale. waaw moo def yëpp xale ndax de si biir géew bi ma waxul lu ma waxul man man ne tekk nekk sama concentration am na ne làmb ji moom moom fi indi quoi du ay ay dóor du ay dara. merci mhm. dafa dafa lekk sama lañ ci loolu laa doon dem ndax ci biir instant gis nañ ne moom moo la njëkk a pare mu yow minute bu nekk bu nekk mais dafa mel yow daa am say yu sew yoo koy sànni moom mu xaw a jug néewi noonu lan la. déedéet man dama xam ne ni man làmb moo ñu boole quoi bu nekkoon làmb du ma saaga. benn tàkkusaan moo ñu boole te ko fay fay ma te loolu ñu sekk du ay saagante du ay dóorante fu ñu war a dóorante wala fu ñu war a saagante arbitre sifflé génn suñu diggante wax na lu nekk mën ko sa waay ba arbitre sifflé génn suñu diggante li yëpp li yëpp di ko defaat dafa la neex nag wala arbitre sifflé génn suñu diggante may mu ko tarafatal ay nii waaw pa pa pa pa nu mu ko daanee da nga mën a tooñ de xaw ma lan la man ko fay jig rek mer ma ma lan la xanaa arafas dafa la ko arafas day na sore woon wala nga doon pisse ay bët wala non du loolu doo gisee xale bu ndaw gëm boppam am fit dëggal boppam boo gisee boo boonte sante yow sa doo nekk si jàmm da xam na ne boo bi dafa nekk si yoon macha allah te xam na ni moom mënu mu téye waaw moom xamoon na bu baax mënu maa téye da doon dëggal boo xam ne rek waa di ko nuyu au bu baax waaw boo mante laam yàlla na ko yàlla may ndam ndax ne borom baax la moom dañ doon parfois dañ doon waxtaan sax di reyan di jaayante prek man moom mais maa ngi bu baax <laughs> waaw dama ko faa dama ko faa dama koy nuyu bu baax ndax borom baax la moom borom baax la dama uh-huh. ah, man man maay mm, mm, xam ne xale bàyyiwul dara lépp laaj toog ba mu sës ñu gis ba si te ñëwee supporter yëpp jóg sa supporter jóg nga jógee fële mel ni comme si que da nga mel ni dangay xaar jéggi ki jaar ci si te lan la. waaw gis nañ la Arafat bul wedd gis nañ la danga nga dafa ñëw nga jug jaayu wane sa bopp supporter yi jug. yow yaa ngi fi teel a kañ. ma ne la démb la gis naa la. waaw tey la kañ laa la. loolu ñoo koy tontu waaye tamit xëcc ñu ñu tontu ko waaye tamit ah ñun si duñ ko xooluñu ko sax. gars yi ko xool nii ku ko booy bu ndaw la ni ñee ko may code ñu ni ñu ko may code wala bës ñu am am lu mu teg naan ay booy rafet ñu may kii de. billaay ba mu ñëw si stade bi dafa lem génn ba mu ron toog si de mosul ñëw làmb toog day ñëw yëngal ba làmb yi ñëwee kii mooy aada kii mooy aada Fass. boo déggee loolu lan la lay def arafa waaw loolu mënul ñàkk la ndaxte tey la kañ laa la wax takk ko téere tey ndaxte ñun làmb lañu def tey jii bëri qualifié de am ñu ko jàppale ñoo ñoo ñu ko jàppale dañu xam na ne bis dina ñëw xale bi dina bëri ñoom ndaxte xale bi man dama nekk sama yoon ndey dëgg dama gëm lu may def te làmb ren nu ñaambi la quoi kenn xamul fu muy dëgg te ëllëg kenn xamul. moom lu mu gunge sa waay ëllëg dina gunge boppam ñëw incha allah. gunge boppam. ëllëg dina te lu mu doon dëggal sa waay nag gaa sa waay dëggal boppam moom ëllëg dana dëggal boppam te incha allah rabbi moom mooy boobu sax mooy raw bi. mais du ma wax si moom ndaxte man du ma man ak moom quoi seeku guñ ko moom mag si làmb moo ngi si kombaam ah maa ngi ko ñaanal jàmm rek ndaxte du man moom. man ak qualifié deux la woon suñu borom may na ma ndam si kawam waaw jeex na quoi mais du man ak moom quoi waaw ma moom dara ndaxte mosuma ma wax si moom mosul wax si man ah, man maa ngi dégg nag mais mosuma wax si moom mosuñu man kenn benn maja mosuma dégg micro mooy si moom ndaxte du man ak moom nekkagul ma ak moom boog mais yàlla baax na quoi yàlla baax na nga looy xëcc looy xëcc xëcc xëcc xëcc lu yàgg-yàgg ah dina ñëw te bu ñëwee rek dina di sa kaw. mais yàlla baax na incha allah. yàlla baax na incha allah mu nekk fi nga xam ne mooy fas ñi gis ki nga xam ne mooy Gris doo am na komba ñi gis 100 pour cent Guédiawaye 100 pour cent Pikine 100 pour cent Passer Fass bi fa la toll. waaw fii ñun ñun cent pour cent lay de wala 1000 pour cent ndaxte ñun Ndakaaru nga yo quoi Ndakaaru ñun fii lépp la ndaxte yow fi nga toog nii fii la laamu sosoo ñun ñëpp seen maam fii la doon fii la doon fii. laamu fii la sosoo ndaxte mag yëpp fii lañ nekkoon barki Serigne Bamba ñoom maam góor gi Ndiaye suñu pap Mbaye Guèye maa nga de wax fii la fii la laamu fii la sosoo boog fii la baaxoo ndeysaan fii la su suuf mooy suufu laamu Fass ñëpp ko xam mais instant bi Ndakaaru ñoo jug waaw Ndakaaru ñoo jug. Mhm. jug ànd ak espoir bu bees ñu ko Ada Fass fu ne nii moom bañ bañ bëgg ndax buñ ne Fass rek automatiquement xel yëpp ci aara fas lañuy nekk en tant que ndaw loolu la lay def. waaw loolu sant yàlla rek ndaxte yàlla rek moom dañuy sant suñu borom di kontaan tamit bu baax ndaxte saison bi bëri nañ trois combats trois victoire te combats yëpp ay jànk lañ suñu borom rek moom moo ñu ko may ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant tamit sama staff bi yëpp ak ñu may ñaal ñëpp amu seen fay taxaw nañ ma bu baax. waaw taxaw nañ ma bu baax a baax a baax. Mhm. ayca li xee li li li ñaan lu duuf ci nag bi yëpp xaju ci cin bi Ada Fass lan ngay wax say supporter balaa ngay tàggatoo. waa di kontaan si ñoom rek ndaxte démb lu mu leen waxoon jëfe nañ ko yàquñu siège xeexuñu ñëw nañ supporter seen seen mbër jubilé parfum wu sengse ànd ak seen mbër seen mbër tamit baaxu mu neex chaque jour ah, di leen bëggeel ndaxte ñoom dañoo am mbër boo xam ne nii. day yëngal àdduna moom jële yu muy daan du am si ponkal du am man awma seen fay surtout tutànk yi barki Serigne Saliou ak maire yi ñu may ñaar maire yi nekk fii yëpp maa ngi di gërëm di fukki penc ak ñaar yi nekk Ndakaaru kontaan naa bu baax si suboteer yi day wax nii la rek nañ gën a jàpp te non à la violence bi ñu si gën a taxaw ci non à la violence bi chaque jour waaw maa ngi gërëm ñëpp dégg nga kàddu yi rafet na ndax li naan nit ku muy àndal rek kooku moo kooku moo koy dooleel Ada Fass tàggatoo bi. waaw maa ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di sant yëpp du ma limee koñ rek damay juum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Aba Kara Baye maa ngi gërëm bu baax a baax a baax di ko sant di tamit di ko sant di laa jël dafa ñibbiwaat. moom sama papa la moom sama papa la. maa koy sant ko gërëm di gërëm Aziz di gërëm ñëpp jàpp si combat bi di gërëm Barthélémy bi di gërëm ndakaaru bi yëpp mais Bamba Fall moom maaso spécial moom sama papa la moom maa koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm fukki penc ak ñaar di gërëm Kajoor bi yëpp Daaru joob Njaxalaan Waalo Fuuta Casamance Gambie Pout di gërëm ñëpp man àdduna ñoo may ñaanal. dem nga foofu yëpp. àdduna ñoo may ñaanal Casamance barki Serigne Sallou àdduna. Mali waaw Mali di gërëm ñëpp man àdduna ñoo ma ñaanal barke Seydina Mohamed maa ngi ñaanal ñëpp yàlla na yàlla ñëpp am jaamu yàlla na ñëpp am jaamu merci madame. ayca di ko bëggee bu baax a baax waaye di bëggee waa mafia Almadies bi yëpp Aar Fass woon mbër ak champion. kontaan ah, ah ba tey. léegi Iltara lañ tuddee seen bopp Iltara. Iltara Arafa ñooy dañuy def sabar te bu gënee ngeen teew. Ah, ah, ñoo ngi nii. dañ ciy woo àdduna yëpp fukki pencum Ndakaaru yi dañ koy woo. caravane fii la commencé Ndakaaru bi yëpp la ñuy wër le premier incha allah samedi la ñuy def suñu caravane bu toj aw Ndakaaru bi yëpp dañoo bëgg presse yëpp ñëw jël ñu ñu wan ni champion am na waaye sargal Arafaas bi. billaa walaay wa talaaxi dañuy yëngal ba mu neex presse yi ñëpp ñëw ñu def mbooloo bu am doole waaw di kontaan si yéen tamit di kontaan suñu mbër billaay di ñaan ñi bi féete ginnaaw yëpp suñu borom delloo si leen si jàmm salaam ñi caabi féete ginnaaw yëpp suñu frères yi suñu mag yi suñu rakk yi suñu morom di leen ñaanal jàmm rek ne loolu nattu la rek lu mënul ñàkk la te di leen ñaanal jàmm ne dañoo war a waa delluwaat société bi ndaxte Sénégal benn bopp la ñëpp la. waaw di leen ñaanal jàmm rek di ñaanal tamit ñu ñu jiitu suuf ew seen kaw di ñaanal ñëpp ñu nekk si hôpital yi suñu borom génnewaat leen si jàmm ak salaam di ñaanal Sénégal yàlla na yàlla yàlla yàlla fi jàmm yàgg si barke Seydina Mohamed. amin ndaxte ñi fa nekk gënuñ leen te loolu jombul benn julit jombul kenn di leen ñaanal yàlla génn def te li tax ñu dem fa ñi bañ koo defati ah mbër champion la woon Ada Fass damay bëggee bu baax a baax noonu laay def beneen semaine beneen vainqueur ci beneen koñ. beneen mbër jaajëf ayca go